Kaolack di dëkk yoon bëri oto yu fay jaar at mu jot ñu nemmeeku ne am na ñetti téeméer ak juróom benn fukki accident yu fay am yi ci ëpp nag moto jakarta yi ñoo koy sookee mensuellement yéen gis nañ ne accident yi am ci Kaolack xayma nañ ne lu mu néew néew dina mat ay fanweeri accident ci weer wu ne loolee moo tax convention des jeunes reporters du Sénégal zone centre amal benn séminaire doon tàggataat journalistes yi ci li nga xam ne moom moo jëm ci sécurité routière pour dimbali journalistes yi ñi nga xam ñuy wax ak askan wi bés bu ne bés bi nañu woola nga bëgg a daw fii daw fa ca des te bëgg bëggoo gaañ kenn mu ne nañu organiser séminaire bu mel nii ci sécurité routière experts yi wax ak ñun ci termes yu ñu a utiliser ci li waral euh, sécurité routière ni mu yaatoo li mu vaste bu bu ñun bu ñu toog di def suñu émission wala ñu bind suñu papier ñu am ci lu ñu sukkandiku lu dëgër loo xam ne bu ñu waxee dina mën a laal askan wi mu ñu mën a changer comportement ngir mën a wàññi accident yi. diirub séminaire bi ay kilifa yoo xam ne seen xam-xam màcc nañ ci wàllum sécurité routière tàggat nañ bu baax a baax taskatu xibaar yi ngir ñu mën a sensibiliser waaye ñuy xam ni ñuy traité information yi. tey bu ñuy nee dañuy ñëw fii waxtaan ak en fait journaliste yi pour yee leen ci wàllu kaaraange yoon euh, jox leen ay jumtuwaay maanaam ay genre euh, maanaam xam-xam boo xamante ne bi danañ ci mën a sukkandiku pour que ëllëg bu ñuy def seen i émission wala seen i reportage wala seen i public reportage wala ñu def ay dossier ñu mën a am ay éléments yoo xamante ni kenn du ko naatable kenn munu ko weddi accident yi bëri na lool ci réewum Sénégal direction régionale des transports routiers bu Kaolack di xamle ne bés bu yàlla sàkk ñaari nit danañ ci ñàkk seeni bakkan at mu nekk nag ñeenti junni accident danañ ko nemmeeku ci réew mi lu toll ci juróom-ñaari téeméeri nit ñàkk nañ ci seen bakkan ci atum 2019 bi.